asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen fu ngeen mën a nekk si àddina bi rek tey nag xam nga dafa am koo xam ne dañ ko seet si defe naa ne te ku nekk xam na ko ci Sénégal macha allah léegi comme ni ma koy faral di waxee rek mu nekk koo xam ne ah royukaay la ci dëkk bi ndax li tax mooy taxawaayam ci Sénégal ci li mu nekk ci franc parler ci kàddoom ci dëggoom muy suñu papa Gaston fan yi nag réew mi yëngutu bi mu yëngutoo nag ci mbirum politique. ay nit dee ci ñun ñëpp ñu di ko ñaawlu di ñaane di jaale ñi faatu yal na leen yàlla yërëm xare leen aljana waaye tamit ñi ci gaañu ñu leen di ñaanal wér di ñaan Sénégal yal na fi yàlla dellu si waat jàmm ba ñu mën a dellu ci suñu ay activité ndax tamit lu dul jàmm jàmm ku doon gën te jaboot jàmmay mbokkam defe naa tamit dégg ngeen tey jii suma juumulee coow loo xam ne jogaat na ci dëkk bi luñ ne ministre de la justice moo ko wax jëmale ko ci làmb ji loolu nag lu mu ci mën a doon rek yaakaar naa ne moom mii am na ci kàddu ndax defe naa ci làmb moom kenn mënul wax Sénégal làmb te waxoo Gaston Mbengue loolu la yàlla dogal moo tax tey ñu ñëw seet si ko euh, papa Gaston maa lay nuyu di la waaw jërëjëf euh, Babacar maa ngi lay fay. ngeen mm-hmm. gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw. Mm-hmm. di wax ci loo xam ne rek luy defar réew mi la. ñun tuuti nañ ci sax mais dañuy jéem yàlla na ñu yàlla dimbali ba duñ fi wax lu ñu waru wax comme ni nga ko waxee dafa la ñuy commencé émission bi sax dañuy jàll suñu doom yi ñàkk seen bakkan ci manifestation fi amoon ci fan yi ndax Sénégal ñëpp ay mbokk lañu suñuy doom ñoo ci ñàkk seen bakkan suñuy jarbaat donc yàlla leen yàlla xare àjjana ca lii gëj fi mu bañet fi am sax li am nii ci fan yi ba mu jur lii nit ñi génn coow am loo xam ne daal lu doy doy waar la yow yàgg nga ci réew mi macha allah yàlla nga fi gën a yàgg lu mel nii boo ko gisee tey lan nga ci war a jële comme ay leçon mais loo war a wax tey sene su Sénégal ak i tamit kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi te lu am lu mel ni su amee kenn du wax ak kenn ku dul ñoom ñi nga xam ñoom ñoo ñoom ñoo ñu jiite. d'abord euh, yàlla na yàlla musul ci seytaane seytaane mi ngi ci. daf ci bari sax donc euh, li am am na wa pare mais heureusement que bi mu amee it le président de la république Macky Sall a été très grand déglu na peuple am comprendre na peuple xam na li peuple am bëgg li bonoon kay mu bañ a déglu peuple am bañ a déglu jeunesse am mais heureusement que dégg na message bi. te lépp lu ci war a dana ko def lépp lu ci war a ca mu nekk ci euh, tegu ci yoon loo xam ne pour jàppale euh, réew mi la comme na mu ko daan defee dana ko def dana ko yokk parce que président Macky Sall koo xam-xam ni ci lu jëmale réew mi kanam rek la nekk ba mu fi nekkee ba tey c'est que nag ñun itam kenn mënula nu koy waxee waxeeti dab suñu bànneex yëpp tey lii daal réew mi àddina bépp la dal Euh, mbas mi moo umbale ad moo ubbale lëmbe àddina yàq économie yi industrie yi làmb ji ci boppam lépp lu daan dox ambulant yi jaaykatu gerte yi jaaykatu fonde yi ñëpp yëg ko ba mu soogee di am président Macky Sall li mu jëkk def wuti pexeem wuti un milliard ñëw séddale bi nu waxee waxi vaccin boobu ba tey ma ngi wuti vaccin di indi ba léegi vaccin yaa ngi ñëw ci cinq pays d'Afrique yi jëkk am vaccin ci lañu bokk kon kooku mi ngi jéem ki nga xam ni mi ngi séenu deux mille trente cinq Sénégal ñu fekk ko mu naat boobu xam nga deux mille trente du ko fekk ci bopp réew mais yéeneem ak ay prévision la teg donc ñun ñëpp ñu war cee jàpp parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi sunu doom yi ñooy sëy ëllëg ñu bañ a négatif di jël côté positif toujours ku dul juum amul même ku juum ñu positiver ko fexe ba ñu teg luy defar réew mi surtout yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci presse yi ñoom yéen laay ji gën a sas loolu parce que presse dafa am puissance ci am na ci ñoo xam ne dañuy poser ay question ay nit rek nit ñooñu aussi tàkk rek di wax luy yàq te loolu baaxul pour kenn parce que fii tey lu fi yàqu Sénégal gépp la yàqul ñi ñi fi ñàkk seen bakkan suñuy doom lañu mënoon naa ñàkk loolu mënoon na fi bañ a am ma daal na nit ñëpp delloo si seen xel ñu xam ne tey président Macky Sall moom la fi yàlla teg du fi nekk éternellement bis bu jógee keneen day ñëw ñeneen di ñëw ca ñiy ñëw bëgg nañ fee fekk réew mu baax man loolu rek laa am message boobu daal laa am bu ma doon joxe ci xew-xew yi xew-xew yi nag metti na. mais est-ce que euh, que président Macky Sall euh, par rapport ak ni ko ñenn ñi wax est-ce que yéexu la wax. parce que bi coow li déclenché nit ñi naan na wax na génn na génn na génn mu mel ni bàyyi na ba mbir yi gën a sori est-ce que fi mu waxee yéexul. non non yéexul ñun ñoo euh, bëgg critique rek président Macky Sall mi ngi doon wax xëy na dafa waxul ouvertement ak ni ñi mais mi ngi doon wax mi ngi doon wax ak kilifa diine yi mi ngi doon wax ak euh, kilifaade yi mi ngi doon wax di wax ay ak gouvernement di wax ak ay collègue am euh, président yi nekk ci àddina bi ay waa CEDEAO yëpp mi ngi doon wax ñuy wut solution bi ministre de l'intérieur waxee ba pare ba lépp ba nit ñi commencé dal parce que il fallait que parce que nag président de la république président de la république nag am loo xam ne moom moo ko yelloo wax yam doon wax ca suuf ak di indi euh, stabilité ak jàmm moo tax ba. bi muy wax fekk na jàmm ju commencé parce que fekk na ñu bàyyi sunu doom sunu rak Ousmane Sonko parce que ci réew mi la bokk ñu bàyyi ko ba mu egg ba këram ba ca guddi ga président wax xamal njabootam jeunesse am que comme déglu naa leen comprendre naa leen te danaa agir en conséquence loolu ku mu doyul dara du mais lu président def rek ñu bëgg koo teg njuumte wala waru ko war a def ak waru lii la waroon def ak nee la waroon def. dañ koy wóolu bàyyi ko muy liggéey bi mu waxee wax ji gàtt na lool treize minutes la durée mais am na sens lool ci ku bëgg a dégg lu sensé ku bëgg a dégg dëgg li mu wax am na sens lool li ci amoon solo mooy dégg na peuple am dégg na sentir na leen dégg na leen wax léegi nag li ci kanam raw li li ci kanam raw li dégg na peuple am mais tey bu ñu xoolee tey classe politique bi ni mu jaxasoo parce que xeex yu bëri ba ay bakkan di rot ci politique bi lay jógee depuis defe naa ne 88 ñun boobu ay xale lañ te lépp fi la fekk ak élection yi am di am ay ni ay bakkan di wadd est-ce que tamit politiciens yi bu ñu xoolee ndax dañoo moom réew mi ñoom wala lu xew ba à chaque instant rek ñoom bu ñu jógee rek jógaa bu ñu jógee ci coow rek ay bakkan des ci. ñun ñoo ñàkk fayda rek. parce que déggagoo politicien bu jël bakkanam rot wala doomam bakkanam rot wala jarbaatam wala jabaram ñun rek la ci sunu eh, eh, ay doom di eh, ñàkk seen bakkan de peuple bi ñoom rek la seen doom di ñàkk seen bakkan donc loolu rek war a leen a yee ku leen ni jóg leen ñu xam na la lan la ñuy jóg jóg pour rayante jóg pour ñàkk ñàkk ay rak ñàkk ay doom ñàkk ay mbokk loolu jóg jaru ko famille yi njab père de famille yi mère de famille di waxtaan ak seen njaboot yi aussi parce que dëkk bi metti na président de la République xam na ni metti na xam na ni metti na ba metti na ba nit ñi talatuñu sax seen njaboot yi pour di waxanteek ñoom ak di leen conseiller mais lii du yoon mais heureusement aussi que le président de la République euh, avec sa grandeur qu'on qu'on lui reconnaître li nga xam ni message bi nga xam ni moom la population yi lancé surtout surtout la jeunesse voilà donc euh, voilà. am na solo am na solo mu mel ni kon loolu mu wax leer na ah euh, loo si mën a dégg itam waaye dafa yaakaar ne xale yi bi ñuy jóg wala ñuy jóg dañu dem ba yaakaar ne xëy na dañ leen a bëgg a teg lu ñu leen warta teg ci ay mettit ba tax defe naa ñoom ñu jóg defe naa loolu bokk na ci di gën a yëkkati nit ñi. waaw mettit wi mooy leen rek mbas mi mbas mi léegi ca nag yàlla na ko teg. ak tëju Ousmane Sonko. non non non nañu tëj fi nit il faut pas Ousmane Sonko kenn jotu koo tëj kenn tëju ko. nan ko arrêté nan ko. citoyen la nag aussi politicien la mais politicien rek moo mën dëkk bi citoyen la am na plainte la ñu commencé woon plainte ba yàlla na man de li may ñaan yàlla liñ ci wax lépp yàlla na bu ci dara nekk dëkk parce que nag xale la am avenir am di nit ku baax euh, seytaane man laa yóbbu ci lu nekk mais lii ñuy wax yàlla na bu am yàlla na fekk ni seytaane mënu ko ba mu am man loolu laa koy ñaanal yàlla mais plainte tey ñun ñëpp am doom yu jigéen wala jarbaat yu jigéen wala mbokk yu jigéen kenn sa ku sañoon tey sa doom kenn du ko jiiñ loolu wala ñu koy boolee ci affaire yooyu donc euh, loolu am na eh, am ñu ci profité nag bëgg ci mele yeneen bëgg ci mele affaire politique ba mu far am débordement heureusement que aussi bërki démb ban demee foofu ko ma démb yooyu yëpp charge yooyu yëpp kenn wax ko waxu digganteem ak beneen sénégalais la moom la ñu wax loolu yàlla na yàlla na ko ci yàlla setal man loolu rek laa koy ñaanal yàlla loolu affaire justice la dégg naa sax ñu bari di di ci bëgg a tudd ay Macky Sall complot Macky Sall man mii Macky Sall mënumaa jàpp sama loxo sax dugal ma fenn fu ma neexul wax dëgg ak yu mel noonu Sénégal nañu delloo si xel yi ca bàyyi tooñ gi ci gëm yàlla aussi nit ku ne mën ngaa def erreur nit ku ne mën naa juum njuumte gii nag moom yàlla na bu mu nekk dëgg. kon yow da nga gëm ne complot amu ci. non pour man non complot am complot yow mii bi ngay dugg sama kër da pour ñu dugal fi. da ngaa complot pour ñu dugal fi. kay sama daal ñëw nit fu mu dugg rek yaa sol sa daal dem fa moom yàlla na fekk ni lam ni moom la fa doon wuti moo xam ni ñu xam ni lool rek la yàlla na ko yàlla defal man loolu rek laa koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal ñu xam ni ñëppee maase wu ñëpp dañuy maase wu yàlla am na ñoo xam ne ca chinois la ñuy dem am ñoo xam ne góor leen di maase am ne sax jigéen leen di maase mais yàlla na fekk ni ko ci tuumaal mu bañ nekk dëgg man loolu laa koy ñaanal yàlla. am na solo am na tamit ñu ngi wax ci côté maanaam politiciens yi car par rapport ak lu mu ko mel ne Khalifa Sall kan nga xam ne moom mooy Karim Wade ñoo xam ne dañoo jàpp ne dañ leen a jaay doole bëgg leen a génne ci réew mi ci ay élection lépp nit jàpp ne président Macky Sall da bëgg a def maanaam nekk mbër moom kese daal. yooyu yëpp ay waxi naa feq la dara du ci dëgg. Hmm. il faut comparer ce qui est comparable. Khalifa Sall kenn porté ko plainte Karim Wade kenn porté ko plainte peuple bi la ñu amaloon affaire justice dogal la mu war a dogal kenn yéene wu leen ko ñoom itam man Khalifa Sall sama rakk la Karim Wade sama rakk kenn yéenewu leen loolu sunu saa yu ñëw bokk ni ñëpp mais nan bàyyi fu dara amee rek ñu fa xëcc loola bëgg a ku bëgg a jaxase xelu nit ñi ñoo ñooñu it dañ leen di ñaanal yàlla parce que lu gën a garaaw dal na ay politiciens ci yeneen dëkk ñu acquitté leen delloo si leen joxaat leen seen droit yëpp yàlla na yàlla def loolu am nañuy ñaan yàlla ak di plaider loo xam ni euh, positif na pour bañ di bañ di euh, dégg nga tiiñal un président de la république. wala kilifa diine wala yooyu nan ñaan yàlla yooyu yëpp ñu dem ba juboo ci dialogue politique bi ba président de la république teggi loolu lépp ci ñooñu ñëpp ñu dem ñu wote parce que du toute façon ñu ni nee na mais tey lu xew ñu tudd Karim Wade Khalifa Sall euh, comparaison n'est pas raison nan bàyyi comparer lu ñuy comparer nan fekk lu comparable ñu koy comparer. Hmm. yow ba tey dinaa laaj parce que su ma juumul waxoon nga fi ay temps ne que troisième mandat Macky ànd nga ci ba tey yaa ngi ca loola. waxi troisième mandat yéen rek koy wax. ak opposants yi da ngaa dégg gu Macky Sall wax waxi troisième mandat da nga ko mas dégg yow dama lay laaj. Macky waaw. waaw non moom li mu waxoon ci troisième mandat bi kay lenn moom na bu ko ko kenn wax waxi troisième mandat. ko kay jeex na parce que mënta nekk candidat. non waaw mënuñoo yem ci loolu mënuñoo yem ci loolu. moom loolu la waxoon dafa waxaat leneen non dama lay pose question <laughs> dafa waxaat leneen da nga koo dégg. déggaguñ loolu waaw kon nag nan bàyyi mu liggéey liggéeyam population yi dañ ko fal pour mu def mandat bu baax mu liggéey liggéeyam. mais politiciens ñooy profité tout le temps di dugal ay jaxabal yoo xam ni pour nit ñi bañ a fàtte. nit ñi di di lëndëmal xelu nit ñi à tout moment le président Macky Sall liggéey moo ko tax a nekk mi ngi liggéeyal réew mi et extraordinairement nag mi ngi liggéey. mi ngi liggéey nañ ko bàyyi mu liggéey ba heure bilan jot mu def bilan su fi waree jóge daf fiy jóge kenn mënu ci dara parce que nekku fi éternellement yàlla mooy fal. mais taxaw rek ku nu dàq sax ku am problème sax ni troisième mandat bëgg jiiñ lépp troisième mandat te yow ki ngay jiiñ troisième mandat déggul kenn déggu ko mu wax waxi troisième mandat nan bàyyi jàmbur mu liggéey ministre de la justice defe naa Malick Sall ñu koy nuyu di ko jaar xam nga ko dégg nañ ko tey sortie bu mu def ñu ne ci France 24 la ko defee jiiñ na affaire bi kan yi ñu doon mbër yi la wala écrit yi loolu noo ko déggee ba mbër yi mer nañ ci trop wala waa làmb mbër yi comprendre wul ñoo ci wala ñi nga xam ne ñoo leen ko décryptel lu dul noonu. Hmm. le ministre Malick Sall. Ah. la justice. moom le contraire. xëy na nag li ko tooñ mooy deretu avocat bi plaidoirie yi. plaidoirie yi moo ko tooñ moom da doon plaidoyer làmb ji le contraire. nit ñi il faut que ñuy positiver ay propos. que di bañ teg lu négatif. ministre Malick Sall dafa ni. président Macky Sall xam na li ngeen li xew ci réew mi xam na lépp ca it na xam ni làmb ji dafa am doole ci réew mi loolu la bëggoon a wane ci ñun loolu suñu ndam la tey ñu dem tey ba xam nga bi ñuy joxe aide yeeg di joxe lépp joxuñu làmb. Ah, tey tey làmb ngi ni làmb siiw na tey. Ah, ci àddina bi. làmb siiw na tey ci àddina bi yëpp siiwoon na sax mais ci Covid bii tax na ñu gën a comprendre porté làmb moom bi muy wax loolu dafa bëggoon wax ni. mbër yi un ngi nii bëriwunu entraîné tuñu sax am na ñeneen ñu nekk yeneen liggéey defatuñu dara dëkk bi sonn nañu te ñooñu ñu ko seq mooy jeunesse bi loolu tax débordement am mais waxul ni ay mbër ñoo doon manifester benn mbër manifester wul mbër ay noble lañu mbër ay góor lañu mbër ñun ñi leen di tëgg ay noble lañu ay gor lañu suñ dul woon ay noble wala ay góor ñun dul leen tëgg. ñun gënuñu leen a noble kenn man image yëpp maa ngi koy gis gisuma ci benn mbër bu ci nekk te moom it gisu ko waxewu ko it noonu ba mu koy wax c'était pour plaidoyer pour la lutte pour ñu ubbi làmb ji épanouissement am loisir yi dekkiwaat tey ay Dubaay nga ne ay Miami nga ne nit ñaa ngi génn feebar bi déggoo ko fa tey sunu promoteur yaa ngi nii ba Gambie la ñuy tëggee làmb Gambie gu jege gi su dee rassemblement bi ñuy bañ la xew ci ñetti fan yi loolu mun la xew ci làmb rassemblement bu mel noonu mais mais Mari euh, le ministre Malick Sall plaidoirie boobu la doon def pour comprendre loolu nit ñi que ni que comme ni ko président waxee dégg na déglu na jeunesse déglu na peuple am léegi nag le président de la République li ma koy ñaan rek mooy na déglu son ministre de sport ndax moom la ñu dénk muy nit ku bëgg làmp ba ñu tuddee ko ministre de la lutte xam na li ci làmb ci ca bàyyi di déglu parce que président la bu nit rek la mën na nekk fépp mën na nekk au four et au moulin moo tax mu séddale ay pàcc yu bëri mu jox ko ay nit pour ñu jàppale ko ci nit ñooñ ñoo war loyal nekk nit ñu baax di waxtaan ak président li réer li lëndëm ñu ko koy wax mais ku ci nekk soo toogee moom sa yëfi bopp nga koy wax sa affaire bopp nga koy wax fàtte ba mu fàtte sax moom la xew ci réew mi loolu du àndandoo gor Macky Sall bu mu leen gën a gore moom mi jël ci ay parcelle am ci dooleem sédd leen ci ca ku toog ci wetam ay waxi waxi sa waxi bopp rek sa waxi intérêt ngay wax kenn du ci wax ñu bëri bokk xëy na am na mais ñu bëri Macky Sall li mu yëgul yëpp ñoom ñoo tax ñu yëgunu ko moo tax man j'invite le président Macky Sall lekk nay génn ci nay génn ci peuple bi peuple bi dañ ko peuple bi dañ ko bëgg sénégalais yi dañ ko bëgg kenn bañu ko ñëpp xam nañ day liggéey ñëpp ko bëgg rideau bi mu def ci digganteem ak nit ñi na ko dindi trans bu ci am na ko mu mën a waxal muy wax ak ñoom ñu koy wax li xew mais ñi ko wër seq ko nekk ci wetam ñi ci ëpp seen bopp lañ fa nekkal man xam naa ci lu bëri man président Macky Sall sama rakk la au laa de président bi mu nekk ci man tey lu ko laal dafa may laal moo tax euh, ma am audace taxaw am sañ-sañu jox ko ay conseil mooy président de tous les sénégalais mu ngi liggéey président sa jeunesse bëgg nañ la bu yeboo ñëpp nag mën na am unanimité xëy na sax wax ji may wax dana am ñu ma saaga mais man loolu bañu ma ko man tant que maa ngi wax dëgg bañu ma ko ma sikk li bon kay moo wax loo xam ne waxi naa feq la ñu bëgg koo dëggal man bu kenn dëggal su fekkee ni wax naa waxi naa fexe boo kenn dëggal critique nag kenn bañu ko nan ma critiquer mais li ma gëm ak li ma gis ni président Macky Sall mi ngi koy liggéey mi ngi koy liggéey pour ñëpp nag donc nan sant yàlla encouragé ko mu eggale defar réew mi nan ko encouragé ci loolu te di ñuy waxante dëgg ca nu ca ñu généreux surtout la générosité et la loyauté dafa baax ci wetu président mais généreux ah. en soi même rek pour sa bopp c'est pas bien. waaw ah, loolu moom baaxul léegi ak yow mooy faw mënuñu fee dem ba jóge fii te laajuñu la 4 avril defe naa ne jàpp nga ko ab dat pour ci tëgg làmb foo ci tollu yaa ngi koy waajal ndax pare nga. dama dama naroon dama ko doon reporté. waay keroog bi xew bi xew-xew yi amee. waaw dama décidé woon pour reporté ko parce que xamatul woon fu nu jëm. waaw waaw doy na ah, mais bi président wax nit ñi. wax ak son peuple sa jeunesse dama décidé waat ci saa si ne du ma ko reporté dañuy téye làmb ji le 4 avril. di ko ñaan nag parce que wax naa ci ministre de sport Matar Ba wax naa ci ak le ministre de la santé Abdoulaye de Diallo am na kilifa gu ci wax ak le ministre di ko mi Abdoulaye Daouda Diallo kii ma excuse mon la ministre de finances xam ni dafa nekk sama xarit trop moo tax may juum léeg-léeg ci turam ju euh, euh, Abdoulaye Diouf Sarr waxtaan naa ci ak moom am na kilifa gu ci waxtaan ak ministre de l'intérieur ba ni ko maa ngi xaar rek ministre de la santé joxe benn ñu seen commission bi joxe benn stratégie mu exécuté léegi nag lii am na président déglu nanu président déglu nga nu comprendre nga nu comprendre nga sa peuple bërki dem ci CHAN bi ci Cameroun dix dix mille à seize mille places la bàyyi woon ñuy dugg ci stade bi ñi nga gis bërki dem ñu génn ci mbedd mi mu ëpp fukki yoon ak juróom ñuy dugg ci stade bi. président loisir euh, am réew da ko fonk loisir dafa baax ci réew tey allégé nga couvre-feu bi c'est bien ñu la ci gën a encouragé di la ci remercier li lay ñaan mooy stade bi buñ ko ubbi sax intégralement mais même suñ ko doon ubbi à moitié pour ñu mën a respecter les mesures barrières ñu ngi lay ñaan nga defal nu ko pour le 4 avril ñëpp avant le 4 avril parce que yeneen promoteur yaa ngi fi ah, dañuy tëgg avant dañuy tëgg avant le 4 avril yeneen promoteur yëpp naa wax du ma particulier kenn ñëpp promoteur yëpp bëgg nañoo tëgg ah, mais lii moo leen jaaxal parce que tëgg sans jaay benn billet promoteur yu bëri at nañu loolu mënuñu ko donc ñooñu aussi na leen seet ñi daan jaay si ci stade bi seen gerte seen i soow seen i yëpp ñu ngi ci nan ubbi stade yi à moitié monsieur le président la république promoteurs yi tëgg ba le 4 man danaa ñëw tëgg ñaari combat yu mag ak yeneen i combat nit ñi toog ci seen biir kër ñi nga xam ni amuñu place ci stade ba toog ci seen biir kër làmb ji fekk leen ci seen biir salon loolu daal la lay ñaan président lépp loo ci réer soo soo toogeek ak sa ministre Matar Ba xam na lépp moom il est à côté de euh, du peuple il est à côté du peuple il a il est à côté des lutteurs dana dégg lépp mbëri nag message bi ma leen di jox rek bu kenn yàq seen xol. kenn gënu leen kenn gënu leen kenn gënu leen a noble la preuve kilifa yi fi nekk yëpp a bëgg am xaritu mbër ñëpp leen bëgg a jege bu leen kenn jaxaseeg pouvoir bu leen kenn jaxaseeg àddina le ministre Malick Sall lim doon wax mën nañ ko tuddee ni njuumte mais man li ma ko tuddee mooy que da doon plaidoyer pour la lutte ca tey plaidoyer bi siiw na am na buzz am na buum. président gën nanoo déglu gën naa xoolaat ci làmb ji donc loolu kon lu baax la c'est à notre faveur na leen ànd ñu nekk benn mbër yi gardez votre dignité nekk leen benn mbër yu bëri am nañu combat am na ñu bëri ñu amagul komba te pour ñooñu am combat il faut que ñu ànd nekk benn làmb ji ubbi ambiance boobu amaat président de la république nga liggéey sa liggéey ci jàmm ak salaam Sénégal jëm ca kanam. waaw kookoy Gaston Mbengue ah, kon dégg ngeen li mu wax yaakaar naa ne wax ju leer nañ la wax ju tegu fu wóor la te itam nag yaakaar naa ne loolu xel war a naka mën a nangu kon léegi nag li mu wax rek la ñuy ñaanaat mooy le président de la république Macky ak ki nga xam ne nii wala boog ñu yor gouvernement bi rek ñu fexe ba li mu wax ñu bàyyi ci xel parce que loisir tamit dafa bokk ci luy dundal. am réew bokk ci loo xam ne day tax jeunesse bi di mën di épanouir di mën di génne seen kon defe naa itam nañu fexe rek. ba le 4 ak yeneen journée yi des ak journée yépp ci làmb ñu fexe ba xool nañu ñu def ba ay nit mën a ñëw ci làmb ji seetaan ndax loolu du ci yàq dara mais lépp ñu organiser ko teg ko ci yoon di leen jox dig daje beneen yoon incha allahu rabbi ak Equivox TV.